Ousmane euh, sunko ak euh, Mame Mbaye Niang ñoom ñaar ñi leen ñu woowoon leen ni ki tey ci suba euh, ngir ñu daal di wuyu waaye nag ñu dàkk ko ba fukkeelu fan ak juróom benn bu weerub mars mu tukkee ci tribunal correctionnel bu Ndakaaru naka noonee nag li waral mbir mi mooy ay avocat yu Ousmane Sonko ñoom ñaaw ko kon sàkku ginnaaw bi mu amee moom ay avocat yu bees bâtonnier bi sax moom moo mujj wax ak juge bi ba mu nangu li ni mel ndax juge bi moom jàppoon nañu avocat avocat yooyu le amoon nañu euh, diir ngir daal di xam lan moo nekk ca boobu boobule dossier Abdoulaziz Sow Dabax ak Madani Mariga ñoom ñoo ñu fa teewaloon ñu déglu leen.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

waaw ti nañ ko parce que defe naa peut-être que liñ ci doon yaakaar ni que am na loo xam ne ni peut-être que ay gàkk comme dañoo ne am na ci wàll Sonko euh, maanaam yeneen ki yoo xam ne ni euh, dañoo ñëw wàllu si tamit euh, Sonko mooy ñi nga xam ne ni donc ñoo koy plaidel donc certainement que dañoo laajte ne que dañoo soxla maanaam am yenn dossiers yi pour que ñu mun cee sëkkandiku xoolaat surtout pour ñi nga xam ne ñoo ñees pour que ñu mun a imprégné wu un peu euh, ci li nga xam ne ne noonu la mbir yi demee donc euh, peut-être que certainement ne que juge bi il a trouvé le meilleur que mu jox leen ko may leen loolu pour que ñu mun a imprégné wu parce que tamit dañuy ñëw pour défendre quelqu'un et sooy ñëw pour défendre quelqu'un donc il a une forte imprégnation de ce qui s'est passé pour que suñu ñëwee taxaw la barre ñu ne ñu mun a avec euh, beaucoup plus euh, de tonus ñu mun a défendre kii nga xam ne ni mooy Ousmane Sonko nga xam ne moo leen jël comme avocat pour ñu plaider ko. Mhm. Euh, Abdoulaye raison bi ñu joxe mooy ni Ousmane Sonko dafa am ay avocat yu bees du stratégie boo xamante ne ay moom wala ay avocat moom dara. waaw xam nga avocat moom dañ koy du duppee conseil. Euh, te itam kalay lay conseillé yow lam la wax rek nga war a mën a topp parce que ñoom ñoo xam yoon. Mhm. ñoom ñoo xam li nga xam procédure. donc bu fekkee ne am na ay avocats yu constitué yow effectivement mënuñ ko jàppee stratégie itam si li nga xam moo jëm euh, si wàllu procès bi mhm. pour gagner li nga xam moo di temps amaana na mën a jàngat li nga xamul ne dossier bi amaana pour mën a gën a am argument pour bu ñu demee fii nga xam ne moo di procès ba du ñu ñàkk si kanam ki nga xam ne moo leen porté plainte te muy le ministre Mame Mbaye Niang donc noonu lañ ko war mën nañ ko jàppee noonu mais li am solo rek moo di en matière en la matière surtout demee si wàllu diffamation euh, dégg nga maam euh, c'est rar nga gis procès boo xam tey tey lañ ko euh, tëgg tey tey la am le plus souvent booy xool procès diffamation yu bëri renvoi sur renvoi renvoi sur renvoi la tey procès bi en diffamation am na yeneen procès en diffamation yu ko jiitu fop te amaana dossier yaa ngi foofa tribunal di xaar mhm. donc loolu yëpp ko xoolee effectivement mënuñ jàpp ne avocat itam dinañu chercher nu ñu gagner temps pour gën a mën a euh, jox seen bopp doole goo xam ne bu ñu demee amaana duñu leen daan parce que bu ñu fàtte ni waxuñu ci kese diffamation dañ ne moo di euh, euh, faux usage d'eau donc ñetti chef d'inculpation la te kon bu si nekk rek ku si nekk ak pàcc boo xam ne am boo si xuusee xëy na di nga mën a jox ndam sa client te avocat loolu moo di rôle am mu nga ka ñu wax ci keneen muy Khalifa Ababacar Sall mi nga xamante ni doon jiitu conférence de leaders bu coalition Yewwi Askan Wi euh, bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñi ko jege loolu dogal boo xam ne tele la moom ci boppam moom moo ko jël analyste politique bi di Mamadou Albert jàpp ni Khalifa mi jiitu taxawu Sénégal fi mu ne dafa bëgg mën a euh, sëgg ci candidature am euh, jëm ci élection bi ñu wax a tab njiitu réew mu yees 2024 Mamadou Sy Albert ñu déglu Khalifa candidat la taxaw Sénégal euh, ànd na ak moom ci loolu muy def campagne fekkente ne moom nan nekk candidat taxaw Sénégal lu veut laaj Sénégalais yi seen suffrage présidentiel bi jaadu na mu bàyyi mu nekkoon président di Yewwi Askan mu bàyyi euh, poste boobu ndaxte mën na am confusion parce que mënul nekk président conférence Yewwi Askan nekk encore candidat nekk na vraiment fédérateur boole na Yewwi Askan dem nañu élection locale dem nañu législative ba tey jii ñu askan benn lañu ñoom ñëpp léegi nag mu ngi ci engagé pour nekk candidat da jaadu na mu bàyyi euh, post boobu jamono bi mu choisir euh, bàyyi présidence bi euh, tombeek Ousmane Sonko nekk ci ay procès moment bi tamit mënut a indi xel ñaar ci wax ci élection présidentielle sax bés bi ñu ko war a amal fii ci réew mi xam nañu ko ñaar fukkeelu fan ak juróom bu weeru février lay doon bu ñu sukkandikoo ci ab communiqué euh, bu ministère bi ñu dénk wàllub euh, biir réew euh, date bi kon jàpp nañu ko nañoo kon xam diir bi ñuy amal révision exceptionnelle bu liste électoral yi bu mën na nekk gën kaa yàgg fan bu njëkk ci weeru mars bu ñu tënkoo ci loi électorale bi ñoo di cakale sat autorité sénégalaise nag mu ñëw siiwal date bi nga xamante ne moom lañ jàpp ngir amal lii l' nañu boobu leen élection présidentielle ci datu dimanche février ci atum 2024 ñaari semaines nga xamante ne nag ñu ngi ko doon léegi président nag noonee rek jëm ci fànnu googu ne benn fan ci wéeru février lañ ko naroon siiwal suñ sukkandikoo ci loi électorale daal di yëkk seen kàddu jàpp ne nag dafa am lu jalgati ci wàllu électoral bi bawoo ci njiiti réew mi président Macky ministre de l'intérieur sax moom jëloon na ab arrêté ngir daal révision ordinaire bi ñu waroon ubbi dem ci révision exceptionnelle mu mel ni yëf yi mu nàmbali ci administration bi nga xamante ni moo war a ŋànk lii di élection yi ngir tàmbale révision bu ni men ci xaarandi sax ay inscription primo votant yu takku ndax bëri na jamono ji ay nga xamante ñu ngi xaarandi a a am seen carte a bokk ci jongante li fukki weer ak benn dox daanaka suñu diggante ak yooyu élection bi nga xamante ni jamono ji coow li bëri na ci lool. boobu ba tey ñu ngi doon déglu njiitu réew fi mu ne xam nañu kañ la ñuy amal élection. 26 janvier bi ñu génn si la ñu waroon euh, fixé li nga xamoon di datu élection présidentielle bi bu ñu sukkandikoo si article L 31 constitution bi. ak article L vingt neuf ak R R L L soixante trois ak R bu li nga xam moo di euh, euh, électoral bi nga xam nag génn nañu li nga xam ne moo di bataaxal gi ba xam nañu ni élection deux mille vingt quatre vingt cinq février lay daal di am def naa ni dina permettre Sénégalais bu nekk ak wut ba pour mën a euh, bokk ci jongante yooyu bëgg doon président ñoom itam ñu mën a jël seen seen seen seen wàccuwaay seen seen seen ay précaution pour mën Euh, defaru dem si sénégalais waxtaan ak ñoom convaincre leen waaye tam jaay leen programme boo xam ne amaana dina nekk programme boo xam ne ni dinañu mën a jàpp ni lu mën a defaraat Sénégal la wa illaa ñi nekk si nguur gi itam ak seen candidat itam la ñu liggéey naka la koy war a mën a yeggalee mm-hmm. mais lu si mënti am rek moo di li solo si mbir mi du xam kañ moo di date élection donte la am na solo li ëpp si mbir mi mooy liggéey si li nga xam moo di processus électoral bi dëgg-dëgg naka la tolloo ci fichier électoral bi lan mu lañ mooy njeexitalu luwaaw naaj bi bu ñu sukkandikoo ci observation yi nga xam ne observateur Union européenne defoon nañ ko bu ñu génn élection présidentielle atimo 2019 si lii nga xam ne cour de justice bu côté économique des états de l'Afrique de l'Ouest génne na ko jëm si loi parrainage bi ak li moo di rapport commission électorale nationale autonome du Sénat laaj ñu def euh, révision li nga xamoo di processus électoral bi def naa nag war ñu yegg gën a jege présidence bi coow war a mën a juddu si li nga xamoo di processus bi donc nguur gi opposition ak euh, société civile bi war nañu liggéey liggéey gu mucc ayib bu dëppoo si dëgg ra tax waaye itam li nga xam moo di période de révision bi itam ak période de contentieux bi tamit ñu fexe ba nga xam ne la war a inscrire inscrire carte yi itam bañ a am euh, tasaaroo comme amoon 2019 ba sénégalais bu ne bu bu inscrire rek mën a jot carte am te ñu mën a sax instituer képp ku am 18 ans au Sénégal boo ba am 18 ans rek ñun da lay defaral carte d'identité xam ne effectivement bu xante par parloo bu ñuy gis ni si saa bu xewee rek day am saa boo amee 18 ans rek sa carte électeur pare na sa d'identité nationale pare na ñu daal di koy jëbal def naa ne dina mën a def avancée significative nga xamoon di démocratie Sénégal. mu des kon période révision yi Léopold mën nañu ne machine bi waaw machine bu tàkk la wax dëgg ak yàlla noonu lay demee très souvent mais aussi dafa peut-être que dina am ay changement yoo xam ne peut-être dina si juuxu mais en réalité lu ñu mën a jàpp ci lu mel nii mooy ça veut dire ne nit ñi dañ doon xaar peut-être que ñu xam euh, date boo xam ne moom la ñu fixé pour l'élection pour le pour la présidentielle mais comme léegi euh, daanaka la date est connue de ku ci nekk nag yaa ngi mun a préparer sa bopp parce que tamit comme ni ñu koy waxee ñoo xam ne ne dañuy bëgg a voter te la plupart du temps ñenn ñi seeni i carte d'identité day périmé ñenn ñi seen carte d'électeur tamit da leen di réer donc il y a tout un temps de il y a tout un processus qu'il faudra euh, ouvrir pour permettre à ce que ñi nga xam ne ne daanaka amuñu carte d'identité wala peut-être dañu am ay yenn euh, ay yenn pièces yoo xam ne war nañ koo mun a wone que ñu mun a voter donc yaa a tout un processus boo xam ne ne daf ciy nekk dina am euh, des moments ou les gens sont diront ne que peut-être que dafa am bi ay loo xam ne ne peut-être que suñ ko seetee ba bu baax dinañ jàpp ne que fii am na ndëgg sërëx donc lu day doon loo xam ne ne peut-être benn Euh, conglomérat de réflexion boo xam ne dinañ ko amal parce que lan mooy mucc gi mooy fexe en sorte que ñu war a voter nañu voter sans pour autant qu'il y ait au moins des tricheries wala qu'il y ait au moins des bassesses donc loolu c'est assez important donc euh, suñ ko fixé déjà à cette date là ça veut dire qu'il y aura assez de temps mais il faudrait que qu'on s'y mette très tôt que très souvent aussi il arrive que euh, très tôt ñu on qu'on s'y mais après euh, soo ñu maintenant le jour du vote di nga gis ñu bëri ñoo xam ne ne bëgg nañu voter mais xam seen numéro fan la nekk du ñu xam tamit peut-être seen carte d'identité yi ñu leen war a remettre donc il y a un tas de problèmes qu'il faudrait régler le plus euh, rapidement possible afin que tout le monde puisse aller voter que vote moom balaa moo baax balaa ñu mun koo certifier day fekk lu bëri c'est-à-dire loo xam ne ne dafay wàññi li nga xam ne vote bi que ñëpp presque li ñu doon xaar pour mun mu voter loolu mun a antu su antoo nag ñëpp dinañ ci d'accord ne que vote bi amul ay problème mais gis nañ ne que Sénégal la plupart du temps il y tout le temps des contestations. Mhm. Ngok Léopold ñu ci wàllub napp bi ak ab enquête bu Greenpeace euh, def la moo xam ne nag moo di ba bateau russe bu nekk ci géeju Sénégal yi te euh, réew mi amul benn këyit boo xamante ne xaatim ko euh, ci seen diggante ak réew moobule accord de pêche doxul ci seen diggante euh, loolee Mamadou Diop Thioune bokk ci coalition bi ëmb euh, ñi yëngatu ci pêche artisanale ak Mohamed Silla mi ñu dénk communication bi union nationale bi ëmb mareyeur Sénégal daal di ci euh, addu ñoom ñu jàpp ni bateau usine boobule lu bon la wala njeexital bu bon la mën a indi ci pêche artisanale bi tax ñuy sàkku ci acteurs yi ñu mobilisé waaye itam sàkku ci ministère bi yore wàll wi mu indi leeral leen lan la bateau boobule di ci géej gi Mohamed Sylla àdduna ci micro sa Baldé dañoo jaaxle trop yi gisee loolu ñun mënuñoo comprendre géej gi am jën ñu ngi jooy naan jën yi nga xam jënu kaw ndox bi ñuy dundee ñu gis bato boobu yabooy lay napp te loolu doon loo xamante vraiment ñu yaakaaroon fii ñu toll état bi ak ministère bi waruñoo ñoo war a joxe seen avis ci licence de pêche yi daje nañu dégg nga am na bato yoo xamante ñu ngi fi ñu leen di wëlika ak yeneen xeeti bato bato yooyu ñu ngi ñaan ñu bañ leen a jox ay licence su pélagie ndax licence pélagie bu leen ko joxe mooy ñun pêche artisanale dañuy toogi population sénégalaise bi dootuñu sax li ñuy forakas ci jën dégg nga ñu ngi ci interpellé le président mu jël ci ay matuwaay balaa ngay signé ay accord pêche day fekk nga am excédent wala nga am ëpp la ngay dundee jéem nañoo jokkoo ba sonn ak ministère bi jot nañu leen waaye amul kenn koo xamante ne na cee wax amul itam benn autorité Léopold euh, boo xamante ne nangu na àddu ci mbir mi Ah, parce que mbir gone mi di toll du bett kenn parce que yàgg na da ci waaxu Sénégal euh, des bateaux industriels yoo xam ne te yi ñëw dem nekk euh, à des à presque à des centaines de kilomètres un peu partout parce que ñun tamit suñu géej dafa yaatu ba nga xam ne nekk pour pouvoir euh, à chaque fois mun di chasser li nga xam ne ne les bateaux euh, industriels yi nga xam ne dañuy ñëw puiser li nga xam ne mooy suñuy jën ba pare yóbbu ko donc il un dispositif qui a été mis en ma en branle parce que simplement loo gis ne que dañoo gis ne que suñu euh, suñu sur ressource euh, de la plupart du temps c'est des bateaux d'industrie ñoom ñooy ñëw ñu raaf presque lépp lu fi nekk ce qui fait que le Sénégal aujourd'hui dafa am problème sax euh, ak li nga xam ne ne moo di jën pour am ko très franchement yenn saa yi ça dafay dafay manquer parce que tout simplement suñu waax yi nuñ ko waroon a garder amuñu ko mais finalement il y a eu des bateaux yoo xam ne ne le Sénégal les a acquis ay bateaux yoo xam ne ne de temps en temps dañuy dem en mer pour jéem a contrôler cette ndax s'il n'y a pas des bateaux yoo xam ne ne qui viennent pêcher euh, dans nos dans nos dans ressources euh, surtout quand il s'agit des poissons ba pare yóbbu ko mm. donc euh, pour loolu nag il y a eu des efforts qui yoo xam ne ne état bi jot na ko def mais nag ba léegi euh, teewul nekk ba léegi mu ngi am donc ça veut dire ne que il faudrait que ñu gën a densifier waat li nga xam ne ne moom la ñuy euh, aaree li nga xam ne mooy suñuy ndox mm-hmm. surtout suñu géej gi nga xam ne ne wax dëgg ya euh, bari woon na jën torop mais gis nañ ne que il y a de plus en plus une raréfaction euh, du poisson parce que tout simplement c'est parce que y a des bateaux yoo xam industriels mais yenn saa y des bateaux yoo xam ne ne c'est des bateaux yoo xam ne ne dañ leen avaler mais léeg-léeg nag dañ koy jël joxe ko tour boo xam ne ne kenn ko xam ne ne par exemple sénégalais qui se fait dans la pêche wala qui est dans le secteur ñooñu tamit ils font ça mais bon buñ koy def léegi la plupart du temps on ne verra pas des Russes wala des Français mais on verra que c'est un national quelqu'un qui

qui est en train de faire ça mais peut-être que na saay tamit day feeñ mhm. bu feeñee mën nañu jàpp bateau boobu ba pare ñu dóor ko ay amende mais la plupart du temps li ci ëpp moom c'est que c'est des bateaux industriels qui viennent euh, qui sont en qui viennent rafler la plupart du temps nos poissons mu ngoog euh, euh, ministère bi ak autorité yi nanguwuñ cee yëy yàbbi ndax loolu teeyul xel waaw defe naa ne euh, lu mel ni bu fekkee ni am na kuréel goo xam ne gu mel ni li nga xam moo di GEPES euh, noonu la GEPES euh, wala Greenpeace autrement euh, bu fekkee ni dañoo lancé alerte bu mel nii mhm. def naa ne autorités yi war nañoo mën a communiquer si li nga xam ne moo jëm si mbir moomee parce que itam bu ñu nee li nga xam moo di pêche illégale ak rapport bi nga xam ne génn na si à l'échelle la wax gàllankoor yi nga xam ne pêche illégale bi da koy da koy an yenn dëkk yu mel ni nag dëkk yi nga xam ne amuñu doo trop doole lu si mel ni Sénégal def ni euh, loolu war nañ ko mën a xeex xeex boo xam ne xeex bu yaatu la donc ministère bi à travers le ministre Pape Sagna Mbaye def naa ne war nañoo mën a xëy na ñu ngi si sax waaye nag gën a andi leeraange si xam ne moom la Greenpeace alerté te Greenpeace dafa nekk organisation internationale boo xam ne def naa ni c'est très rare mu yëkkati kàddu jëmale ko si ab mbir suba ñu ne loolu du dëgg itam la ko soxal dëggantaan moo di nañuy préserver ressources yi waaye itam bañ koy pecc itam nañu respecter li nga xam moo di norme yi nga xam ne moom la ñu war a am si xamul secteur de la pêche jàpp ne dañoo nekk si li nga xam ne moo di euh, espace économique boo xam ne partagé muy union économique monétaire ouest africaine def naa nag ñun dañoo war a lëkkal liggéey liggéey goo xam ne on aura même des bateaux qui euh, euh, yoo xam ne dañu vont voguer naviguer pavillon avec pavillon li nga xam moo di UEMOA wala pavillon CEDEAO ñuy nappal suñu bopp di jaay union européenne waaye bàyyi signé ay accord de pêche si lu ma jàpp union européenne ñoom ñii ñëw fii di pêche ñun war nañu mën a pêchal suñu bopp ba pare jaay leen ñu soxla eh, parce que am nañu niveau d'investissement bu fekkee ne dañ ko dañ ko dañ ko boo ak espace yeneen dëkk yi pour mën a jënd ay gaal yoo xam ne daa mën a dem fu ga union européenne yi dem pour mën a def loolu te daañ si gën a mën a gañe si li nga xam mooy jaay bu ñuy jaay njëg gi ñuy eh, njëg bu ñuy jaay sur le plan sur le plan eh, international pour mën a xeex li nga nekk pêche illégale bi pêche illégale bi ñu gën a armé la marine nationale euh, donte la am na njundukaay ñu gën ko yokk pour ñoom itam war a mën a gën a liggéey si préserver li nga xam ne moo di côte sénégalaise yi. mu ngoog Abdoulaye ñu euh, ba tey des ci wàll wi ndax ca diwaanu Ndar ay fan gi nii gis fa jën doon na lu jafe euh, te li ko waral ci bu ñu sukkandikoo kàddu yi tukkee ci jigéen yi nga xamante ne dañu fa nekk di yëngatu njaay mi bokk na ci mbooye bi waaye na ci ni ñetti nappkat réer ci ci géej gi boobaak eh, léegi eh, samedi bi ñu weesu woon loolee nag tax nappkat ya fa des eh, daanaka bëgguñoo dugg dugg ci jamono ji ci géej gi neex daal di ci ay jën Babacar ñoo lañu ci ondal dafa manqué lool ci marché yi moo xam ci marché bu soor wala ci île bi fii ci Ndar jigéen ñi nga xam ne nag dañ doon ñëw di ndugg si ka méttitlu jën ñi si bopp moo manqué ñetti fan yi nii dañuy dem marché dara dara dara du suñu benn jën bu ñuy jënd fan yi moom géej daal kii keccax rek moo am te du laal kilo géej yës junneeg juróom benn téeméer keccax ñetti téeméer xam nga loolu baa doolu mënu ko dina waaye sant yàlla daal jën ñi seer boo waxaale ñu ñu junne jëm kaw junne jëm kaw rek ñi nga xam ne ñooy jaaykat yi wala ñi mareyeur yi jigéen yi ñoom na wax nañu ñàkkum jën bi li ko indi bokk na ci géej yi waaye tamit naqar jóge ci ñetti nappkat yoo xam ni dañu réer ci géej gi ay fan yi loolu yëpp nag tax sax activité économique yi dara doxatu ci. ah ñun de fan yi ñun dañuy dem jàmmalaay duñ gis benn gaal gu teex sunu fan yi sunu liggéey noonu la taxawee nee nañu mool yi dafa amoon mool yu réer ndax ngelaw li ay daal góor gi géej gi moom metti na ñu ngi ñaan daal yàlla def si jàmm ndax baana baana yi amuñu lu nu jaay ñi ngay jënd jënd tam amuñu lu nu jënd président fi mu toll nii ku ci nekk nag yaa ngi góorgóorlu ak say ay pexe donte sax dund gi seer na rawatina nag ci mbirum jën ak yu ni mel kilifa diine yi nekk ci biir dëkk bi di sàkku ay ñaan ci jàkka yi ngir rek jàmm mën a dellu ci biir géej gi. téeméeri fan euh, def ci boppu euh, Dakar Dem Dikk euh, directeur ba mu ngay def bilan Ousmane Sylla jàkkaarlooskatu xibaar yi la moo xamle moo di def na fa lu bare bari waaye bokk na ci ni charge yi téeméer boo jël wàcce fukk ak juróom parc automobile bi itam téeméer boo jël yokk na ca ñaar fukk ak juróom ñett waaye yamu ca ndax recette yi téeméer boo jël ñeent fukk ak juróom moo ko def ba mu fa nekkee ak léegi ñoon ci ak Safitou Bandiaye téeméeri fan gi bi ñu ko tegee ci bopp Dakar Dem Dikk directeur bi di Ousmane Silla ñëwaat rek di def bilan wom li mu jot a gérer rek li nga xamante ni moo di entreprise bi te fësal itam li nga xamante ni moo di ay réalisation ñu toog xoolaat lu ñu xam ne ni charge yu ñuy am si biir kër gi ñu ne il faut que ñu réduire ko mooy ni carburant bi nu ñu koy consommer bus yi nu ñuy rouler nu ñuy ralentir loolu yëpp ñu taxaw technique bi taxaw loolu tamit yàgg na ni ñu réduire ko de plus de quinze pour cent loolu moo tax mun nañu ne augmenté nañu suñu recette de plus de quarante cinq pour cent loolu pour am ko vraiment macha allah. lu toll si ñetti téeméeri bis ñu ngi koy xaarandi fii ak weeru juin loolu lépp jëm ci rek gën a renforcer li nga xamante ni moo di réseau bi ak parc automobile bi. ñu ñëw tey ñu ne am nañu benn projet de plus de mille quatre cent bi bus yooyu yu nga xam ne ni bus yu gën baax si àdduna bi foofu lañ koy jëlee mooy ko incha allah balaa juin dinañ am lu mot ni 300 bus ñu nga xam ne ni bus yooyu am na ay bus yu nga xam ne ni dinañ nekk Dakar. directeur Dakar Dem Dikk di xam kaaraange lu ko soxal la jot naa fexe itam ba dajeek ñëpp ñi nga xamante ne rek dañu ko ci terrain bi ngir rek gën a mën a am cohésion sociale ak liggéeykat yu ànd booloo nekk na. Sénégal dalal na ab euh, mission d'évaluation ci secteur minier bi euh, jëwrin bi ñu denk euh, wàllub yoon ni ki tey ci suba moom moo jiite woon cérémonie de lancement boobule mission la ñu ca bëgg nag bokk na ci wala li ci gën a fës mooy fexe ba def bonne gouvernance ñu am ko ci secteur minier ci Afrique bi yëpp ñoo nu ca kajaratu ay chañ yi nga kilaas yi bari na ay jafe-jafe yu mën a tukki exploitation mine ci réew Afrique yi. lépp loo xam ne lii day jógee ci suuf si euh, di loo xam ne lii mën naa am jeexital ci réew mi. ñu di ko wax mine muy lu demee ni ki phosphate lu demee ni ki zircon lu demee ni ki wurus loolu. ressources yu ni mel dañ ko war a amal ci mu sell. nañu xool alal ji ciy jóge naka lañ ko mën a saytoo. doxalin ko doxal doxal ko doxalin wu sell ngir mu bokk ci soppali ar kar xanamu Sénégal ci wàllu koom-koom loolu sukkandikoo ci professeur Thioub ressources yi itam war nañu dépasser koom ca biti réew ba ñu mën ca réñoo qui à exporter des matières ci toxal li tukkee ci sunuy suuf way ñu jariñoo ko ci sunu réew ngir askan wi gis ci seen bopp et de nos experts yi bàyyeekoo ci mbootaayu Afrique yi bokk ci secteur minier dinañ teew ci Ndakaaru ba ñaari fan ci weeru mars bi ñu dëgmal ak yeneen i diiwaan yu minière ci Sénégal njiitu international bi ëmb parents d'élèves yeeg euh, étudiants yi moom itam mu ngi fii ci euh, réew mi Hector Ardan Raphaël Ouédraogo Gow euh, mu ñëw ci invitation union bi ëmb association parents d'élèves yeeg étudiants wu Sénégal yi njiitu international bi di xam ne ni ñoom dañoo ñëw jàppale boobule union bi ëmb association kon parents d'élèves yeeg étudiants wu Sénégal yi ngir ñu mën leen ràññetle ci wàllu yoon muy reconnaissance kon juridique muy fàttali ni Sénégal ñoom ñoo yore secrétariat permanent ñu déglu ko. Les défis qui s'offrent à nous aujourd'hui, c'est de faire attention à ce que défi yi ñu war a relever jamono ji tembe mooy ñu fexe ba xale yi ci àdduna bi yépp am éducation bu ànd ak qualité loolu mooy suñu xeex tey jii nii maanaam fexe ba njàng mi ak njàng mi waaye te tàggat bi maanaam formation bi nekk réalité ngir mbool tout tànk ci àdduna bi lan mooy seeni xalaat ci ëllëg éducation ci Afrique li gis mooy des na lu bëri te ñun suñu dañoo war a liggéey ak kilifa yu gën a kawe yi ngir njàng njàng mi ak njàng mi bañ a des ci ginnaaw politique ñuy tëral loolu ngir ñu mun a tàggat ay yu responsable. donc avoir des citoyens ñu wëtani diwaanu Louga wax ci ab atelier bu ñu fa amal ngir jële fi ba faw maladie tropicale négligée yi euh, ca ndajale bu ndaje boobule bari na ñu gotu ci wàllub santé publique ñoo xamante ne woon nañu ko euh, jóge ci ay réew yu bari yu soriwul Sénégal ci mel ni réew Gambie euh, nee ñu gën kaa néew lu tolloog juróom ñetti milliards ci suñu ay par moom lañu soxla ngir jëlee fi ci xeetu jàngoro yooyu le lu tolloog fukk ak ñett ñu on jàkk Galaye Sylla suñu correspondant Louga jërëjëf mala tropical négligé di wéy ba tey doon yittey waa kër docteur tax sax ñu amal ci Louga ak gu yaatu am sax doomi Afrique yu ci wàll si mais gis nañ de Togo ñoom éliminé nañ quatre maladies tropicales négligées euh, Gambie bi nga xam ne ñoo denn aussi ñoom tamit ñi ngi ci ndaje bi gis nañ ne éliminé nañ ay traque mu nekk ay jéego tamit ñun waruñu woon des nañoo fexe ñun ne Sénégal dañuy tudd ci dëkk yi nga xam ne ñu dañoo jeexal feebar yi ndax dafa nekk feebar yoo xam ne bu développé mënuñu ànd ak ñu naan ñu tënk nag bile plan ci budget bu ci juróom ñetti milliards war dox nag ci juróomi at Cheikh Saad Bor médecin chef région bu Louga di sàkku gu yaatu ci mbir mi ñaar fukk nga xam ne organisation mondiale de la santé génne na ko Sénégal daanaka fukk ñett la ci topp yi nga xam ne euh, daanaka am na yi nga xam ne nag moom chaque année organiser li nga xam ne mooy traitement de masse mooy joxe garab en tout cas ci population yi ci yenn structure ciblée yi mais am na yi nga xam ne nag cas par nekk yi nga xam ne ku ñëw hôpital ñu xool gis ne lii nga am ñu faj la euh, yeneen secteur comme yeneen ministères yi ñu xam ne que ni ñoom aussi am nañ ci wàll bu rëy rëy euh, ci xeex bi parce que lu bëri lay dépendre ci ñoom aussi. ci diwaanu Louga nag ñu nemmiku ne ci arrondissement Kër Momar Sarr feebar bii di bilharziose di benn ci yu ñuy xeex sonn na fa lool li ko waral nag